sadil lisaane nawir janaani safi amaane washi baraaye sadil lisaane nawir janaani janaani safi amaane washi baraaye ah, جناني سذي أماني وشبراي اللسان سكتو باي سنو ياكار سذي أماني وشبراي أسعد اللذان جناني برايا أدل لسانا يا جرى دايرو شيخ أحمد بامبا سميع معنا يا برايا أزال لنا ليلى لا janaane

Saraaya

ودتدا يصلي وسلم على المتعمد كل ياسين للانتهاء يا يصلي وسلم على المتعمد كل ياسين للانتهاء للانتهاء أمنا ليلا بالإله سلك قلبي سل وعي نباي عبد لربي لله لله لا لا لا بالجوايا الحمد لله نسنت يا الله تدزري محمد الله الحمد لله تدزري الله تدزري الله إله الحمد لله نبنت يلا يلا يلا لا إلا لا لا إلا لا الحمد لله كسب سياسة ولا خجانا ما يزال الحمد لله يا نبنت يلا يلا diw loxo jàllal bay sal loxo ila alhamdulillah ya nu sant yàlla yàlla nan bay sal ila la la ila ila la alhamdulillah bay sin Seex Saaliw bay sin mutala ja ila alhamdulillah ya nu sant yàlla Allah Allah ñëw a ñëw na leen lu dul jeex ci jaam ñi maa ngi daal di man di sant ma ànda Seex Saaliw yaa ma la ànda xam nga ci dara yow yaa ma ta déer xam nga ci dara yow maa ngi ma àndal balak maaram ay sax saajo yaa da ko àndal bay san yaa da ko dee àndal yaa da loo borom xel ko jaaga yaa mat a àndal am nga ci dara yow yaa mat a ma àndal sant Seex Saal yaa dem ba taxaw ca kaw mag Serigne Saliou Mbacké yàlla na ko fekk déwén ku fi nekk jugal taxaw ca kaw mag Serigne Saliou ma dee borom jànnatu mag waa yaa mat a àndal am nga ci dara yow ma àndal sant maram ay sax saaje yàlla nga àndal bay sax sopp bay sax yàlla nga defal bay ma ta àndal am nga ci dara xam nga ñu dara yow ma ñi ma àndal ballam maaram ay sal sadio yalee ko àndal bay sal bay sal yalee ko dendal bay sal bay sal la ana soppey Cheikh Ibra Fall yaa ma ta àndal xam nga ñu dara yow yaa ma ta di xam nga ñu dara yow ma ñi ma سيد سالو سيغ أن البيسل سيغ مدو فا سيغ جل البيسل سيغ سيغ ندي سيغ سيغ إسماعيل جوف يا متى أنت نور لا متى دي أنت نور لا ساتنا لا والله ما ربينا يا ريغا أن الميسر نور لا يقد إلا الميسر نور لا يملا سرين سيخ لقل سين يا متان نور لا نور لا Baye Sall Baye Sall yàlla yàq dendal Baye Sall Baye Sall Baye Sall Serigne Cheikh Ibra Fall yaa ma daan xam nga yàlla la yow atudi yàlla sant naa la maa ngi ma àndal yàlla yàq àndal Baye Sall Baye Sall yàlla yàq dendal Baye Sall Baye Sall maa ngi ma àndal sant Cheikh Sall yàlla ko suukori Seexul Xadiim nee na yan sukuri mamma yene ila sangore ibra jero Allah sangore bamba la ila ila la yan sukuri ila ila sangore Allah Allah sangore sëñ Bamba loxo ca kaw lam yan o xal bi Bamba jërëjëf ayli xal seera jaaram aw daa idal be Bamba lay lay la melo xal bi lay le xal bi aw daa aw daa aw daa aw daa aw daa aw daa soppu maam seera faal lam yan o xal bi Bamba jërëjëf loxo daa ayli xal bi seera jaaram aw daa idal be Bamba lay lay la la melo xal dayne xal bi awda awda awda awda awda awda kuy bay fal defal lii ci lam yandu xal bi ama jërëjëf dayne xal bi seeda jaram awda ilal be mam bamba lay dayna la lam yandu xal bi dayne xal bi awda awda awda awda awda awda kuy bay fal defal lii ci lam yandu xal bi ama jërëjëf dayne xal bi seeda jaram awda أودع أودع أودع أودع أودع Alaji Fallu baax moo sa njiit Sëriñ Fallu baax moo sa njiit Sëriñ Fallu baax moo sa njiit Sëriñ Fallu baax moo sa njiit Sëriñ Fallu baax moo sa njiit Alaji Fallu baax moo sa njiit Sëriñ Fallu baax moo sa njiit Alaji Fallu baax Sëriñ Fallu moo sa njiit Sëriñ Fallu baax di def di ay goreer moo gën lay lay la la lay lay la moo sa njiit Sëriñ Fallu di def di gindi Sëñ Fallu góor mu gindi la xam laayi Sëñ Fallu baax man nan la waw góor waw góor sa jëf ji daa foor daa foor juróom ñaari soor lay lay la la lay lay la la man nan la waw góor waw góor sa jëf ji daa foor bëgg Serigne Fallou loxo ca kaw jumaa ji man bëgg sa set te góora bi ñëw na lox mi wal na lay lay la la lay la la jumaa ji man na góora bi ñëw na lox mi wal na ku bëgg Serigne Fallou loxo ca kaw jumaa ji man na bëgg Serigne Fallou góora bi ñëw na bëgg Serigne Fallou lox mi wal na tuba diire gëndoo juma ji man na Alxuraan bi ñëw na fa doona woon na ku bëgg Sëriñ Fallu loxo ca kaw juma ji man na Alxuraan bi ñëw na Sëriñ Fallu ndox mi wal na lay lay la la lay lay la juma ji man na Alxuraan bi ñëw na fa doona billahi sëñ Fallu baax man naan ko waaw góor waaw góor sëñ ji daa foor daa foor juróom ñaari doon lay lay la la lay lay la man naan ko waaw góor waaw góor waaw góor waay juróom ñaari doon sëñ Fallu baax du yàgg yàgg déedéet kum sëñ di doo ko déedéet Fallu i bangru la waar leen yàgg yàgg yaakaar kum sëñ di doo yaakaar Fallu baaru la waar

ku bëgg Serigne Fallou la Fallou barul anwar billahi Serigne Fallou baax cantay waral li doon leen lu dul gi man maa ngi sant maa ngi ma Allah cantay waral li Serigne Fallou Serigne Fallou Serigne Fallou Serigne Fallou ana soppay Serigne Fallou cantay waral li doon leen lu dul gi man maa ma kum si diidoo ba fanaan ba rola waar leeral na rew me yaakaar yaakaar yaakaar bamru nan waar ni wër naa raw ma alaaji falooy bamru nan waar leeral na rew ma alaaji falooy bamru nan waar ni wër naa rew ma alaaji falooy bamru nan waar leeral na rew ma alaaji falooy bamru nan waar bay jaxate ne ya teg ma jëgër ya alwaar na dugg jële ya alwaar na jëlal ya way daamu aljana Mbakke borom jamono yaa nu moom yëkkil nga yirew Serigne Saliou mujj yére borom jannat taxula bew Mbàkke doy na jamono yaa nu moom te taxula bew ala ma ca ngay doy nga ko waaye demoon ngeen ana soppe yi Serigne Saliou waaye ma demoon ngeen

sëriña demoon géej ku bëgg bàyyi faal kuy bay faal jógal yëngut Seex Rafaal jaar na loolo kuy bay faal jógal yëngut Seex Rafaal jaar na loolo kuy bay faal jógal yëngut Seex Rafaal jaar na loolo kuy bay faal jógal yëngut Seex Rafaal jaar na loolo ku bëgg Seex Rafaal nan ko màggal Seex Rafaal jaar na loolo bay faal nan ko màggal Seex Rafaal jaar na loolo ku bëgg Seex Rafaal nan ko màggal Seex Rafaal jaar soppu Cheikh Rafal naan ko màggal Cheikh Rafal jar na loolo taxula mbem ko màggal Cheikh Rafal jar na loolo kuy bay bal naan ko màggal Cheikh Rafal ëpp na loolo taxula naan ko màggal Cheikh Rafal jar na loolo taxula naan ko màggal Cheikh Rafal jar na loolo taxula borom gaal gi jël na gaalam Seex Muntaxa Ba borom gaal gi jël na gaalam Baay Muntaxa Ba borom gaal gi jël na gaalam Sëriñ Muntaxa Ba borom gaal gi jël na gaalam Baay Muntaxa Ba bëgg xalifa bi defal ni sa loxo Seex Muntaxa Ba daxula jël na gaalam Baay Muntaxa Ba borom gaal gi jël na gaalam Seex Mustafa ba la jël na daal bay Mustafa ba ak Seex Sidi Muxtaar yow yaa ko moom ak Sidi Muxtaar yow dem yaa ko moom ah! yoon wi yaa ko moom yoon yaay borom taxula sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey